d'après ba ñu defee benn étude gis ne 70 pour cent des jeunes sénégalais tey dañuy dugg ci internet mais ci 70 pour cent yooyu noonu dañoo gis ne 50 pour cent yi c'est des jeunes yoo xam ne soit ils sont analphabètes wala boog ñu nekk jeunes yoo xamante ni xamuñu njëriñu internet donc ñu ne comme que suñu mbo suñu suñu suñu parents yi heure bu ñu jugee ne a ah internet baaxul heure bu ñu jugee di xalab internet te ñun ñi nga xamante nii yàlla may nañu au moins ñu toog ci ay banc xam nañu njëriñ li ñu ne ah ñun kat dañuy jug. maa ngi remercier képp koo xamante ni teew nga ci conférence de presse bi di remercier membre PJCD yi ñi nga xamante ne nii ay ndaw lañu waaye tamit am nañu initiative wu xam ne tey Sénégal bu baaxee tey ñun la baaxal waaye tamit bu bonee ëllëg. suñu Sénégal la ñun ñëpp ñu jug xalaat tey plateforme bu mel ni PJCD yi tey bëgg a ñoŋal suñu liggéey bëgg ñoŋal tey suñu suñu suñu suñu suñu sensibilisation ci li nga xamante ne nii moom la internet di yàq bu ma ci jugee damay remercier ah public bii fi toog nekk tey public boo xam ne c'est particulièrement ou bien majoritairement jeune mais sans oublier mag ñi nga xamante ni tey ñoo partagé ak ñun idée bi bëgg ñoo accompagner et li ñuy wax souvent mag mat naa bàyyi cim réew. waaye duma dem benn yoon sans ma remercier ñii nga xamante ne nii ñoom la fi ministre de l'économie numérique et des télécommunications monsieur ba Diatara mi nga xamante ne nii ba ma yëkkatee sama téléphone wax ko ko mu nekk ku accessible aussitôt daf maa ne lépp lu soxal internet. lépp lu soxal nouvelle technologie lépp lu soxal jeunes yi dama ciy dem mu yónnee ñu délégation bi tey ñëw accompagner ñu ci lancement wu programme bi donc may fàttali ne internet dama naan phénomène la boo xamante ne nii dafa ñëw ci réew mi waaye tamit internet outil la boo xamante nii ñun ñëpp tey muy élève muy étudiant muy entrepreneur soxla nga ko pour ñoŋal sa liggéey waaye dañu seetlu ci fan yi ñu wees ne dafa am une série de dérives yoo xam ne mu ngi ci internet bi ku wax ñu saaga la ku wax sa xalaat au lieu ñu ne la ah li nga xalaat man xalaatew ma noonu saaga lañ koy fajee ku jug di menacer ci internet ngay menacer ku jug tey di wax waxu xeet loo xamante nii ñun juddu nañ ba tool nii ñu ngi koy doog a dégg ci internet bi nga koy nga koy gis kuy wane tamit lu bon ci internet nga koy dugal ñu jàpp ne. moom sa téléphone am ci droit joxula la droit tey nga moom internet ba tax na lu neex waay wax lu neex waay def ñun waa PJCD yi ñu toog xalaat d'après ba ñu defee benn étude gis ne di pour cent de jeunes sénégalais tey dañuy dugg ci internet mais ci 70 pour cent yooyu noonu dañoo gis ne 50 pour cent yi c'est des jeunes yoo xam ne soit ils sont analphabètes wala boog ñu nekk jeunes yoo xamante ni xamuñu njëriñu internet donc ñu ne comme que suñu mbo suñu suñu suñu parents yi heure bu ñu jógee ne ah internet baaxul heure bu ñu jugee di xalab internet te ñun ñi nga xamante nii yàlla may nañu au moins ñu toog ci ay banc xam nañu njëriñ li ñu ne ah ñun kat dañuy jug xeex dérive yooyu noonu ba tey internet njëriñam ëpp wala mu gën a visible tey lii nga xamante nii moom lay yàq te société bi di ko kaas barki Dembo Ndiaye gis nañ li xew ci réew mi te internet am partition bu rëy bu ci bu ci bu ci joué ñun ndaw PJ PJCD yi ñu taxaw ne loolu doot fi am dafay dakk nan lañ koy euh, euh, defee niñ koy defee lenn la par tout la sensibilisation mais sensibilisation boobu dafay jaar ci benn programme programme boobu noonu du ñàkk après dinañ ci waxtaan ak euh, askan bi du ñàkk après dinañ ci waxtaan ak nguur gi du ñàkk askan bi après dinañ ci waxtaan ak élèves yi étudiants yi ak képp koo xamante ni tey internet soxal na la programme bi ñu ngi ko bëgg a dooree ci benn tournée nationale boo xamante ni PJCD yi dafa engagé wu pour def ko dugg dans les plus grands lycées du Sénégal lu ci mel ni lycée Valdiodio Ndiaye André Pétavin bu Saint-Louis lycée Malick Sy bu cees ak lycée Limamoulaye bu bu Dakar buñ ci jógee avec l'accompagnement des cinq ministères bi nga xam ne mooy ministère bi yor wàllu intérieur ki yor justice ki yor éducation ak ki nga xamante nii moo yor économie numérique ak télécommunication ñu taxawal benn bërëb boo xamante ne nii tey dañ fay tàggat ndaw ñi ci wàllu internet wan leen tey yeneen bienfaits yi nga xamante nii internet am na ko ndaxte am na benn mag bu ñu daan wax Seydi yu Malick radiyallahu taala anhu mu naan ñu naan ko lan moo tax sa njaboot gën a yaru ci njaboot yépp mu ne du ma neex benn xale bàyyi lu bon waaye dinaa fexe ba du am du def lu bon donc tey c'est par cela c'est parce cet outil la ñu bëgg a jël utiliser ko bëgg a tey jeunes yi xamal leen ne am na beneen njëriñ que ne mën nañu utiliser internet à d'autres fin que lu dul taxaw di ci saaga lu dul taxaw di ci xalab lu dul taxaw di ci wax loo xam ne mën na taar réew mi wala lu ñuy xeebee tournée national bi ah, bëgg nañ ko commencer au plus tard bu koor gi bu ñu génnee ci koor gi bu ñu génnee ci koor gi bëgg nañ koo commencer parce que comme ni ma ko waxee ci njëlbeen bi internet dafa nekk loo xam ne kenn mënu ko contrôler parce que masse de données bi ciy dugg moo am importance donc loolu toog ba koor gi jeex sax euh, euh, euh, ëpp na parce que ba ma koy wax benn waay mu ne ma seen xeex bi du seen xeex jaamu yàlla la donc yaakaar naa ne au plus tard buñ ci waxtaanee ak les autorités étatiques ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo waroon def xeex bi waaye comme ñun tey bu ñu xaar kenn ci état parce que état mu mënul def lépp ñun ñi nga xam ne ñun ñooy jeunes yi te ñun ñoo ñun lañuy reproché bokk ne ñoo yàq internet bi donc ñun ñoo koy commencé avec l' appui de l' état avec l' appui des bonnes volontés incha allahu rabbi après ak nos propres mooy dinañu mën a ñoŋal tournée boobu noonu. Euh, salle bii nii tey ñu nekk fii di con di di réunir jeunes yi ngeen gis ñi nga xamante ni tey ñooy def dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm. tax tey ñu mën koo débuter waaye nag dañ ciy remercier le ministre de l'économie numérique il est très accessible macha allah gis nañ ne tey ku mel ni moom bu ci jàppee te tamit promettre nañ ne dina ci jàpp parce que nee nañu loolu c'est un combat noble boo xamante ni tey c'est un combat de tous les sénégalais man dinaa ci jàpp donc promesse boobu tey mën nañ jàpp ne mën nañ koo téye ba tey bu bu fi buñ doon day wax waxu budget sax dañ naan am nañu benn promesse de taille. incha allah dinañ dem seeti tamit yeneen ministères yi seeti les bonnes volontés tamit jéem a xool nan la ñuy ñoŋalee loolu. Euh, l' adhésion des jeunes moom comme ni ma ko waxee tey déjà ñu fi ñi ngeen fi gis ci salle bi ay jeunes lañu donc déjà ñoom ñoo partagé idée bi bëgg nañu tey bu ñu defee tournée tamit fu ñu dem incha allahu yi bu ñu waxtaaneek ñoom ba pare dinañu recueillir tey seen adhésion pour mën ko ñoŋal ba mu wër Sénégal. mesdames et messieurs les membres de la PJCDI. Mesdames et Messieurs les responsables des organes de presse, chers invités, à l'entame de mes propos linéaires, permettez-moi tout simplement de remercier les responsables du ministre de l'économie numérique et de la télécommunication, M. Yankoba Diatara, d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de la plateforme des jeunes contre les dérives sur l'Internet à l'occasion de sa première conférence de presse. La PJCDI est une plateforme des jeunes qui vient de voir le jour pour lutter contre les dérives sur Internet. En effet, nous avons constaté ces derniers jours sur les réseaux sociaux une série de dérives et bien avant, il y a eu également beaucoup d'histoires rocambolesques dont les, principaux canaux de diffusion étaient tout simplement les réseaux, les réseaux sociaux. Et ces dérives ne datent pas d'aujourd'hui, car nous avons constaté que l'évolution numérique du Sénégal en a joué un très grand rôle. En 2009-2010, par exemple, il y a eu cette femme dont les photos compromettantes faisaient tout simplement le tour de la toile nous n'allons pas tout simplement rentrer dans les détails afin de respecter sa vie privée. Mais cette histoire n'a pas eu le même buzz, comme on le dit, nous les jeunes, que celle du sextape des jeunes de, du, euh, de, de la cité mariste de l'année dernière, dont les principaux acteurs étaient des jeunes. Cela peut s'expliquer par le fait qu'à l'époque, le taux de pénétration sur Internet au Sénégal était faible. Facebook, Twitter viennent juste tout simplement d'arriver et WhatsApp n'existait pas encore. Et une fois qu'Internet a été démocratisé, vulgarisé, en plus l'arrivée des réseaux sociaux et de WhatsApp, d'autres dérives ont vu le jour. Parmi eux, on peut citer aussi les cas de Dave Major, Mbathio le tatoueur Tico et bien d'autres cas. Il y a aussi le cas de Ouleymane, qui avait suscité beaucoup d'engagement. En effet, l'un des premiers cas qui a fait connaître aux internautes l'existence des sanctions pénales sur Internet, sans compter les injures, les appels à l'insurrection, les menaces dont certains citoyens sont victimes sur Facebook. Aujourd'hui, nous ne pouvons nier la capacité de transmission de l'information à grande échelle et à grande vitesse qu'offre Internet. Dès lors, il est facile de contrôler cette, il n'est pas facile donc du moins de contrôler cette information à grande échelle et de donner des données diffusées sur la, sur la toile. Par contre, il est du ressort de l'État et des mouvements comme la PJCDI, de tous les citoyens d'être conscients des bienfaits et des méfaits de l'Internet et de mener le combat comme nous le faisons. un combat de sensibilisation des proches et des différentes communautés. Certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais la PJCDI s'engage tout simplement à sensibiliser les jeunes sur l'existence des lois. Parce qu'il faut retenir qu'il y a l'existence tout simplement euh, des lois que l'État du Sénégal a établies depuis 2008. Par exemple, il y a l'Assemblée nationale a adopté la sur la, les transactions électroniques. Il y a la loi de 2008-2010, 2008-10 du 25 janvier 2008 portant loi d'orientation sur les sociétés de l'information. Il y a aussi la loi 2008-11 sur la cybercriminalité. On peut aussi citer la loi 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel. Toutes ces lois toutes ces lois du moins restent méconnues à la, à la, à majeure partie des jeunes sénégalais. Aujourd'hui, beaucoup d'internautes pensent que les caractères virtuels du web leur confèrent le droit de tout faire, tout est n'importe quoi, sans autant devoir rendre des comptes. Et tout ça par un problème de communication et d'information que la PJCDI s'engage à mener. La PJCDI rappelle qu'une masse importante de jeunes inconscients, à la fois analphabètes, qui ne sait pas comment faire une utilisation efficiente de l'Internet qui peut être une alternative aux problèmes socio-économiques, éducatifs que nous rencontrons. La PJCDI lance alors un appel à l'État, à tous les acteurs de ce milieu et toutes les bonnes volontés qui connaissent et comprennent les réalités de l'utilité de l'Internet et de nous accompagner dans notre programme de sensibilisation. Nos frères et sœurs sur les dérives, mais aussi surtout les avantages qu'offre Inter, Internet et les réseaux sociaux.